Abadu keur gi dafa am sunguf am poudre. bom bi nga yor moy sunguf bi. bi moy sunguf gis ngeen ko. waaw waaw. bi ni moy liquide bi. liquide bi. kep ko xamne nak da nga am jafe-jafe. waaw bo jógalee awram du deuguer waaw wala bu sey di gawa paré pare. Mm-hmm. wala bu defé ben du mën def ñaar. Mm-hmm. sa garab ngi ni nii. may wax né waaw. garab gi képp koo xam ne jox nañ la ko. waaw nga utiliser ko sa première guddi. sa première guddi. lañ la ca wax gisoo ko indiwaat ko ñu delloo la sa xaalis. assurance tout garab gi doo ko jël muy yëngal sa estomac. waaw maa mu yëngal sa jabeet waaw maa muy yëngal sa tension te loo soxla ci kàttan dana la ko jox. la neexee amal juróom-ñaari at yoo xam ne sëyoo. Hmm. boo ko jëlee da nga sëy ci bis bi. ci bi waaw te loo gën a utiliser muy gën a baax ba ba ngay tàqalikook néew kàttan waaw yokk awra bii hmm. téeméeri nit ñoo wàññi Sénégal juróom-ñeent fukk yi gëmuñu yokk awra gëmuñu yokk awra am na ñoo xam ne dañuy taxaw ne yokk awra amul hmm. loolu du waxi borom xam hmm. ndax fekk yaa ngi taxaw naan yokk awra amul yaa ngi wutal suñ borom lu mu man ak lu mu tëli te yàlla suñ borom dara tawu ko waaye yokk awra bii gàncax yiñ ko defare waaw bambara yi buñ maye waa jigéen te amul ay ween waaw dañuy dagg ci xob yi buñ ko ko takkalee quinze jours day am ay ween def li mu a def. a def lenn ca xob yooyu nag lan jël boole ko yiñ ko war a booleel muy yokku awra amul sikki sàkk. te buñ la ko joxee amoo résultat ñëwal jëlaat sa xaalis loolu leer na. lii pommade hémorroïde la. pommade hémorroïde. ndax hémorroïde dafa am ñoo xam ne dañoo am. taximaan yi dañoo am hémorroïde buy génn. am mm. hémorroïde bu ne ci biir am ñoo xamante ne hémorroïde dem na ba yàq seen àddina. Mm. ñenn ñi pour ñu dem xëy dem toilette sax munta ne ndax dañuy seere. waaw ñenn boo xam ne. Mm. du ñu dem toilette. waaw képp koo xam ne danga am hémorroïde boobu nag. bu dee hmm. hémorroïde bu génn la pommade bii laa lay jox moom ngay diw ci biir. Hmm. moom mooy seeyal picc bi. bu fekkee danga nga am hémorroïde boo xam ne ci biir la ne nag. Hmm. dañ lay jox garab boo xam ne moom ngay naan. suba ak ngoon mu lay fajal hémorroïde bi ci yow dindi ballonnement yeeg yëpp. ba ba nga ba nga ne ci jàmm. góor ak jigéen mag ndaw. ñëpp a ko mën a utiliser. may fàttali ne. waaw góor bu amee hémorroïde na fexee tàqalikoog moom. ndax hémorroïde boobu dana dem ba wàññi awraam. wàññi kattanam. ba nga xamante ni bii xelam sax du nekkati ci sëy jeex na. bu ngeen déggee ñu wax taaru jigéen. pour taaral jigéen moo ko tax a jóg. Mm-hmm. dafa yokk fes. ak ans. waaw ak dënn. ak dënn dañuy warmaal kàddu yi nag moo tax duñ bëgg a wax lépp. Mm-hmm. waaye bépp jigéen boo xam ne danga ngaa bëgg am forme. Mm-hmm. li commencé ci kaw ba ci suuf. bii boo ko utilisé noo bëggee forme rek dana la ko maye noonu. produit bi 15 nga ko utilisé. fes yi commencé yokk ak ans bii day maye forme ab sirop la. ab sirop la sirop la boo xam ne jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg am forme bu baax. Mhm. ñoo koy utiliser. Mhm. bii boo ko utiliser suba ngoon. da ngay am forme bu baax te du rëyal say lex ban lay gis naan la da ngay naani doom. da ngay waaye forme noo ko bëggee rek da nga ko amee noonu. bii mooy sëqal karaw. sëqal karaw. waaw am na ñoo xam ne. Mhm. dañuy am jafe-jafe pour seen karaw sëq. Uh-huh. ñenn ñi seen karaw bu commencé sëq ba ñu am yaakaar mu commencé dagg. wala muy muus képp koo xam ne da ngaa am leel. waaw bëgg leel boobu am karaw uh-huh. boo ko utiliser da nga am karaw lii shampoing la bu muy àndal ab gaam la góor ak jigéen góor jigéen ñëpp ko mën a utiliser góor ak jigéen ñëpp ko mën a utiliser leen mbokki Thiès mbokki Kajoor ah dama ni seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di wëri ba Ndakaaru cal ngir am kër gu rafet dama la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Darou Minane dama la sunuy rongoñ Ferna, na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waw tabax aha kay da ngay samp sa kër kay ma wax la lépp luy matériel quincaillerie EDM établissement Touba Darou Minan Diagne frère un nañ la bu baax la am ci walu plomberie nak mo fi ay matériel de toute nouvelle génération manila électricien yi mom dañu fa sax abonné ndax li ci lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci walum université EDM établissement Touba Darou Minane la ca gën a rafet la ñu tànn andil ko askan ah kay waa EDM Touba Darou Minane Diagne et frère ñii nee nañu ñoo bañ duñu tàqalikoog lu baax maa la ko wax de Tamanila dal la bañ sa de pompe suppresseur d'eau ay PVC original damale la ñi dara lepp luy construction bo fa démé ñu jaay original ba ci ay prix yu abordable sen tu est dal jarul Wa EDM établissement Touba Darou minan. frère ñu ngi fi ci Thiès ci quartier Touba Thiès gi ci marché Moussante waaw waaw ma numéro téléphone

Sidibé fii mooy kër Sidibé Sakura moom mooy Sidibé sëriñ la na am na jinne Sidibé yaa ngi kër Sidibé Sidibé fii mooy kër na am na jinne maa nga seet ñu boo bëggee sa ju di nga sango di nga naan bu dee tul am na bayri buy tuuru tàll de bit wala yokk sa ngóor eh, bul am looy tiit mala maay MC xam naa ne kii daa wóor waaw ma ne jógal ci ay toor lu du dégg du yag deux ans laa taaj ma ne kii suma effet oh dem naa ci gaali mu esek waaw léegi dégg naa beneen femme bi sax la teg ko kooku di cousine si jabaram jot na ko wax ay soxlaam mais bëggul sax coow li jóg si kaw ah. yow xanaa si boo laajoo pino kaw ak Abdou Fall Dias sai sai lơ nắng hai sai lơ hầu a di sai sai lơ yau khana di wala yau bino kawak abdu fal jas degerek di kas pun ko jabe dan ko tal nak te waji dor kan lơ te waji dor kan lơ mong waji sai sai lơ si di be sai sai lơ CD back, CD back, feel my girl CD back. Sakura moom mooy Sidibé sëriñ la te nee na am na jinne Sidibé loo nekk gëj naa laa gis de yaa ma bàyyee bu bari laa ko boolee ak nga jongomaa nii jongoma na ma koy dégg nii rek ban stress nga war a tey am doom day te yëguma ko sama copain bi temps aw maag moom jàmm amuñu salaam jabar bu ma rombee ci bi sax damay tëltaat kan la daaw la daaw da la daw da men daw da sama banquier xam nga ne kan bu ma tamit nak damay torox duma yor di ah daw da waru la def loolu daw da da loolu la ma def mok jabaram waye yow fo nek ci rew mi yu billahi tok sama keur di la rek di stress yow nga xam ne mbëggeelu naturel amatul fenn ah munu lay def ko dama fi del dugg gen sutu borom jabar bo boo duggul génn yow do ci mos dara billahi fidel lek kan xam nga ni man dama mën a dund mbëggeelu indo looloo ma sonal jeex na tay Ma am ben pa bu xarañ bo xamantene lu mu deful baxul wa jox ma numéro. walu jigéen yalla téré ma lay jox numéro yow ngay sama dom day ma lay jox numéro sa tank sama tank, ba ci bir kër ga. waaw loolu kagn lay do jappel bes man pare bu suba nañ dem. suba ñu dem. bu suba nañ amul ben problème. yow bo ah. jappé bes maa la yóbbu ba ca mom ah, bo la ak waaw wax dëgg yàlla amel naa la lu tëb kontaan naa yow trop ba fa kontaan yow. ndaxte dagg maa jële ci lëndëm. Mhm. indi ma ci leer. solution bi nga ma jox nii wax dëgg yàlla mooy solution bi gën fi mu toll nii may wax ak yow tembe fay naa samay bor rey naa samay noon hmm? wallaay la xasim te loolu yëpp bu amee yàlla ak sa jëmm ji ndax tolloon naa bari jamono joo xamante ni wax dëgg yàlla xaru rek a ma dese woon xar suuf si dugg ci.

assumé naa ko dëgg la léegi jàppal ne yow mhm. ngan dem maamul sëriñ ga fi mu toll nii kay sëriñ laa <laughs> déggoo ma de waaw Sakura mhm. jàppal ne ngandam maamal sëriñ ga loolu moo am te gisagoo dara mhm. carte gi carte bande la dëgg la voilà dëgg la cent la carte cent as mooy gagné lu as do gagné dëggit dëggit dëggit man daal man daal lépp loo ma wax fi mu toll nii waaw gëm naa ko tey lépp loo pare pour ñu def ko maag yow pare naa pour tout non compilation bi day continuer fi mu toll nii ñeme naa la ñeme naa say mbir. ndeysaan te it maa ngi lay remercier. yaa baax di la wax yalla nga gudd fan. da ngaa baax ku lay xaar ci lu bon yàlla na xaddi. amiin yaa rabbal aalamiin li nga def nii. sak mhm. ajjana leer na ci. amiin ñu bokk lépp. da ngaa fekk kooru na faatu. waaw nga jël ko yokk dundam. Mhm. aj ak ruum. ndeysaan ma dundaat ci àddina. ma man lii ko ma ko waxoon ma weddu. ndeysaan ak ma ñàkk sama ndey. ma ni. Mhm. bu tëj ragal. baax na avec MC. tout est possible. <laughs> yaa wóor booy waaw Sakura Sidibé mhm. jàppal ne avec MC tout est possible si ba ma la ko waxee gis nga ko mhm. teg nga sa bët mhm. xam nga lan laa bëgg loo bëgg nga gën a defar jaaj yi te xam ni xoola kër gi day rembet loolu doo ma ko wax ñaari yoon non déggoo ma de kër gi day rembet ak ay client ay déggoo ma xanaa boo bëggee koo bëgg ci kilifa ma indil la ko man mom bo beugé dégg-dégg. waaw ragaluma tus. ma ni tout ko mané indil. indil jappal ni maa yor marketing. mbiri lamb yi ministère yi jeeg ji. ñoñu ñoñu buma bu ma leen jëliwul indi sen bop ndax sa tour egg na fook eggul yaw jeex na kon wol na wol na ragal lolu wol na la. saak bëgg ma ngay ragal de sëñ bi. man danga ma xol man da xol ci man ay ragal ak yoy xol ma xol sama jëm ci ba xam da ci gis ragal. kon neex na ah waaw. kon neex na bo nga ne avec est tout est possible. ah da nga wone ne avec Sakura Sidibé tout est possible. Oui, bon. Maman, ici, d'Ibé. Manel, nyawel nga sét ya, ya, eh, ya, eh, si ñëw boo bëggee sa a fa ju di nga sangu di nga naan bu tul amna bay bayri koy tuuru tal de bit wala yok sa ngora eh bul am loy tit mala may MC xamna ni ki da wóor wow mané jogal ci ay to du dégg du yàgg deux ans laa taaj ma ne kii suma effet dem na ci bay ni def ko ñe bu la ci man non bëggumaay cooy fajarteel bii walaay dama lay wax biir looy looy waxaat fii. Hmm? ah man xuloo ma dàgg lan tëw baax na baax na baax na yéex na baax na. ah. Kalla eh eh. eh! Kalla Kalla Kalla. koy waxal daa am ku nekk sama ginnaaw baax na jinne moo taxaw fii rabe bi taxawoon alhamdulilah deewoon na kan mooy dee man yow cinq minutes boo fi ñëwul woon il est jinne jo ban moo laxas woon sa baat bi ليه انا انا الجني فقط ناقو داونا فيك ني داونا الحمد لله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله يو ياي نك سيرين سيدي هم واه كاي واي ني لا نيو ماخا واخي وون ني دخل واخا واخا سيرين بي دا ما راغال موي تاخ سما يارام سما فيت بي موي دف توف توف توف توف بسم الله من ناوه jinne yëpp toog hmm. man nag de dama amoon fii benn problème bu ma dal hmm. man hmm. chaque année chaque année dañu may sàcc chaque année dañu may def sàcc bu metti dañu ma njëkk a samay nax ma bàyyi mu sedd ma ñëwaat. ñu sàcc encore samay béy ma bàyyi mu sedd waaye nag kar bi nga xam ni dama ko doon na sama maam mu jox ko sama baay sama baay dee jox ma xar bi ba léegi maa ngi yar kar bi kar bi jur na fa Aysat jur na fa Mariam jur na jur na fa Amaat jur na fa jumbu mu ngi foofu ñu jël kar yëpp ramas ko une bonne fois. léegi nag dama bugg samay carfé ndax nak mënutuma ak muñ mënutuma ak muñ ñu ne ma nak so demee ci sidi bi fu kar yi dugg délé koy wax nga génn kar yi ñu hmm. génn kar yi may wax la ñeent taxal ma waaw waaw lolu dëgg la du dëgg waaw lan moo tax njëkk woo fii ñàkkoon xam rek ñakkon xam rek it ko wa atte ko wat ñakku boxo boxo sumulu ñu mulu han mune ne di loo may wax na leer nañ yaa deg ñent xar la nga ne ah guddi lañ ko jël guddi lañ ko jël. waaw guddi lay jël ko guddi. dina feeñ loolu laa bëgg ci nu mu gën a gaawee mhm. sa neex ngi tege baax na baax na santal yàlla santal yàlla hali bu feeñee bu feeñee dina kattal sama woon gi ko jël bu jox laa koy karakaase waaw léegi mu wax santal yàlla alhamdulilahi rabbil alamin euh, balaa ma lay defal dara hmm. yow pël nga waaw lan lan lan moo tax yéen pël yi xar leen gën a seen bakkan yi ah lan moo jël xar rek ah, mu gën a leen seen ndey seen baay seen bakkan yeeg yi xanaa xamoo kar ñun suñu juddu eh. ba la ñuy def dara kar moo ñuy nampal boo pare ñu door a jóg def leneen lu ñu moo tax maternité bi maternité bi suñu diggante ak jur noonu la mel moo tax ñu bëgg jur suñu xol. dëgg xar yi dina feeñ. alhamdulilah ndax man. alaaji sëriñ Sidi bi ku ma xamul dégg nga ma. dëgg naa la dama am ay àndandoo. man du man maay wax. waaw ku karacaa mooy wax. ku karacaa. te ku karacaa. Hmm. mi ma xamal ne ma ñeenti xar la. waaw moo ma xamalaat ne ma man naa feeñ. waaye nag. ah feeñ bi du yomb de hmm. ndax xare yi fa mu nekk hmm. sori na lëndëm na tey dina jafe torop pour nga jot ci ah léegi nag sëriñ def nu hmm. ma di lu ko karata mi tegtal bu mu ma jox bu ma la ko waxee boo ko defee say xaar dina feeñ waxal la ko kare ci ko kare ci waaye boo ko deful waxal ko kare ci mu wax affaire Hmm? Hmm? Hmm. baax na. waaw baax na. waaw baax na waaw baax na waaw baax na waaw. léegi wax na ma nee na am nay sarax. waaye balaa sarax yi am na weexal. dama xamul nag ba xam yow noo taxawee. noo taxawee man kay damaa taxaw bu la neexee ma toog bu la neexee ma taxaw. déedéet waxuma loolu de loo indaale. ndax ku karacaa ci li ma wax. ci li nga xam ne mooy weexal liggéey bi pour xarifee. nee dangay da joxe yéen fukki junni. mu ne yéen fukki junni juróom. desaalan Je 000. desaalan moom du waxaale 225 prix la deux cent vingt cinq mille laa chat ne ku Hein Fi, fi Fi eh eh eh eh nga dof ah? nga dof ba ma dégg dugg gitu. wuyu kay dara saa la dindi waaye dootuma ko def dootuma hmm? ko def waaw man nga deux cent vingt cinq mille waaw waaw waaw mun naa ko waaw boo ko mënul nga jóg man sama kar yi na feeñ rek dina feeñ bu soobi suñu borom na feeñ rek dina feeñ bu soobi suñu borom waaw na feeñ rek insha allahu rabbi li ma ko karacaa wax waaw boo ko defee waaw insha allah dana feeñ waaw mu neexee yow jaral na ma man jaral na la kar yi feeñ rek alhamdulilah naka yi feeñ rek ndax borom bu ma ko kiyee ma def ko clématique. alhamdulilah defal ma ko rek. ku kër Thiala la mu dooree eh. ku kër Thiala la mu. ku kër Thiala la rek noo tudd man. Hmm. Ibrahima Xalilu Laaf Aïssa Fatma Amath Jimi Toy Sox. Eh, eh eh yow yëpp nga tudd noo sant. so pour jeri du ne hangani so satul xadim ci kayé bi ajib ko kayé bi xadim non la sama mam mo tollan mo mam mo tollan ya sumulu ñumulu ñumulu sumulu an taxabaxo it ko wa ad ko wat ñak ko ka jidi ma doon gis ngi daw ngene alhamdulillah bismillah téye bi ku ko ko téye naa ko waaw ko téye naa ko ngëpp ko bu baax ngëpp naa ko tal sama càmmoñ téyel ngëbal ngëpp naa ko ci tàgg nga koy yeew bii danga koy sankoo waaye balaa loolu am na benn jat boo xamante ni dama la koy jox bis boo ko jatee gis nga kii xar yi biir bi day daw du am jàmm tànk indiwul xare yi insha allahu rabbi noppi na am jàmm jat boobu la lu ma wax danga koy wax te jat bi da koy jàpp ndax boo demee ba sa kër da ko fay jaral ci daaj ba bismillah bismillah mu ñëw de alhamdulilah mhm. ah. ku karacaa tamit mënul seetal fii non moo moo fay kilim bi quoi xam nga jinne moom tàngoor la bëgg dama damaa yor jabar jinne mhm. itti ko waa ichikuwa atikuwa ti ñàkku atikuwa ki ñàkku waxuma atikuwa ci ñàkku boo koy wax da nga yéesal làmmiñ lekk say tuñ wa atikuwa ti ñàkku atikuwa ki ñàkku waxuma ko waxi ñàkku de waxal ati ati ku wati ku wati ñàkku xanaa ay sinuwaa la sëgal 야유물로 숨을 안 따가버거 안 따가버거 안 따가버거 waaw jaasal noonu jaasal baax na lépp mat na lépp man na bismillahi naa ni xur naa saq yun faq yun jaajaarin léegi deux cent vingt léegi du yow xam nga si xar yi nekk ngi nii du xam nga xar ngi nii bu feeñee nga jël ko arrière eh, ah? ko def boo ko jël kii nag moo bëgg nag waaye kat naa xoonam ba doyal de lii moom bu soobee suñu borom amul MC amul kenn amul diir amul dara Sango du TV, Sango du Sangoguma TV, Sangoguma TV, TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.